réew mi quotidien ak yeneen yéenekaay yépp tey xëy dikk ci génnuk àdduna Alioune Badara Cissé ci xalima Assane Samba yéenekaay bii di xam ne ni kon république bu Sénégal ci boppam moo ñàkk ab antisystème ci ñetteelu xët réew mi quotidien ba tey njiitu réew mi Macky Sall Ousmane Sonko xalifa Babacar Sall ba ci maître Sidiki Kaba daanaka géopolitique bi yépp kàddu gi benn la ku ci nekk di indi témoignage ci dayoo kii di ABC sañ-sañam ak dëggu gi mu am ak nit ki nga xamante ne dëggu la réew mi quotidien dikkaat ak ñun ci nga xamante ne moom la ñuy jëm muy ay comprimés yi nga xamante ne léegi askan wi mën cee jot ngir daal di fagarlu wala sax faju ci mbasum covid 19 bi yéenekaay bi di xam ne ni kon yooyu le garab léegi ñu daal di koy am ci pharmacie yi nekk ci adduna àdduna warawatina ci Sénégal ñi ko war a bind nag di ay médecin waaye ñooñee jar nañoo moytu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 alimentaire yéenekaay gi nee na ceeb bi dañu koy yokk diwlin gi dañu ko yokk suukar sii dañu koy yokk ñenn ci askanu Sénégal nag nee ñu Macky Sall mi nga xam ne moo lañ dénk réew mi li nga xam ne daal moom la waxoon ci askanu Sénégal amul lenn loo xam ne Macky Sall daan na ko say jëfee ndax nag moo fi nekkoon ba jëgu nar a kàmb wax ne njëg yi moom dañu koy wàññi njëg yi moom dañu ko mosu yokk ci réew mi te nag jamono ji njëg yépp dañu koy yokk askanu Sénégal ne loolee Macky Sall ci boppam la mu waxoon bokkul ak li nga xam ne moom lay jëfe jamono ji yéene kaay gi di réew mi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko njiitul pës Pastef nee na Macky Sall du ab démocrate yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky Sall Ousmane Sonko nee na Macky Sall daal benn liggéey la am maanaam dal ci kaw opposant Macky Sall ci boppam maanaam loolee rek la nekkee ci réew mi ba pare nag bi ñaawal askanu Sénégal ndax ñaawal askanu Sénégal weesuwu la yow nga jël soixante milliards yoo xamante ne askan wi ñoo ko moom nga jënd ci ab avion dugg ca biir avion ba naan damay selfie loole nag mooy yàpp askanu Sénégal dëggantaana Ousmane Sonko ne Macky Sall nag bay boo mu leer ko ne coalition bi gën a ngande ci histoire politique Sénégal Macky Sall dina jàmmarloo ak moom ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la Ousmane Sonko na yéen Sénégal yi nag yéen laay waxal na leen leer na jamono ji amuleen ab président amuleen a président Sénégal amul président kaddu yi Ousmane Sonko la ndax nee na yow xoolal mbënd mi mbënd maa ngi nii askan wi sonn ba maara détaali Macky Sall damu fa dee waaye sax déggu leen ko sax mu yëkkati ci kàddoom te loole nag dafa ñaaw ba maara détaali yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu tàggee xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall inna lillahi wa inna ilayhi rajiun journal bi nee na moo nekkoon juróom benneelu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

xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gi nee na yemuñu ci élection locale yi rek ndax bëgg nañoo langoo ba élection législative bëgg nañoo langoo ba élection présidentielle yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na waa PDS ñoom ana fan la ñu fare ci coalition Yewwi Askan Wi Assane Samb xëy jël xalimaam nee na toujours hors jeu PDS maanaam PDS maanaam kenn mënu leen a comprendre ñu mel nii suba ñu mel na le clair obscur waa PDS léeg-léeg ñu tëni daal ay discours yoo xam ne day radical ba maara détaillé léeg-léeg nag PDS na patta pataaral silence maanaam kenn du leen leen dégg gars yi wax sax ne nag ñoo ngay juboo jéeg Macky Sall Pérez la kenn mënul comprendre yéen a kaay gi ne nag Gloria bi Macky Sall doon ca diwaanu Thiès maanaam Karim Wade la Assane Sambo nee nag ab dil maanaam dàquñu ko dee diggante Macky ak ki nga xam ne maanaam nag mooy PDS ndax PDS lépp loo xam ne lu arrangé état bi rek la PDS nekk ci réew mi di yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu dund gu gi nga xam ne moo nekk